waaw jërëjëf nag mën nga war ngaa mën a bëri sama gars yi gis ngeen oto jamaïcain moom la fay nii ñu saccagé ko toj oto bi dugg ci biir gis ngeen brique bi fiñ ko dóor noonu lañu jële jëlee bagage yi euh, jël nañ ñaari téléphone yoo xamante ni jël nañ ko ci biir oto bi mu ngi taxaw tey daal xam naa ni njàq rek tiis la yowaale moom jamaykee yi nag moom yéeme na yi nag doo xam réew mi ci ban dëkk lañu toll wala fan lañu nekk actuellement nii oto baa ngi noonu yéena ko gisandoo Right. noonu en tout cas ñaari côté yëpp laaluñu ko boo xoolee ci biir birig boobu lañ ci dóor birig bi moom bi ñu ko ci dóoree ba léegi laaluñu ko mu ngi ne man nag soit maa ngi maa ngi jaaxle di xam ban côté ak nan lañu def ba toj ko ba yóbbu bagage yi jam tey daa mel ni xëye nga métti de waaw gis mm. mm. xëy gis ñu def mm. ku lay def lii moom bu jokkoo mën na laa rey. Mhm. waaw jël lu toll nii moom dóor ko ci oto jàmbur li fi jël amul sax solo ñaar téléphone la téléphone yëpp écran yi dañ Samsung la. Mhm. waaw Samsung lu écran yi toj ci porteur bi ñëw. Mhm. bi daal on a 72 ak 26. 6 ak 6 ak yi. photo xam nga écran yi Samsung rek. su tojee daanaka jël na téléphone pour su fekkee ma jël taw. Mm-hmm. léegi fan yii laa ko jëloon bëgg ko defar am ay dossiers yu soxla woon nga jël ko def ko ci mais jàppoo ni euh, ki ko def daf la xam wala dafa am lu tax mu jóg wala ab sàmb sula bari la boo xamante ni daa romb seen oto bi wala seen téléphone yi ne ci biir oto bi. mu jël waaw non moom kenn mënu taxaw seen ci biir moom day Mm-hmm. yow xëy gis oto ñu def ko lii su la toppee ñu ne xam nga te ñun benn lañ mm-hmm. la gën a naaj daal léegi la dëgg yàlla dañ koy ñaawlu xam nga di ko naqar mm-hmm. di wax ne ñu ñëpp ñaanal rek képp ko def yàlla nital la boppam waaw ndax lii moom lu ñaaw oto moom boo ci gisoon dara loo xam ne mun na laa njëriñ dee mën a def sax ay pexe yoo ko tijji mooy toog oto jàmm loo xam ne ni boo ko magul magul sa morom la hmm. ah loolu lu ñuy ñaawlu la di waa di di di wax ne teew yëpp daal nañu bàyyi waat xel ci yu hmm. ma fu ñu ñu jëm léegi te dañoo fekk ñu def sa alal yi lii moom lu ñu ñaawlu la dëgg yàlla hmm. métti na nag waaye yàlla baax borom naa demee leneen moom naa tojee ci beneen anam doon lu gën ci rek ay. Hmm. léegi lii looy def euh, da ngay porte plainte wala da ngay da ngay da ngay dem. dara sax waaye dañ koy def hmm. dëkk tamit dëkk yoon la pour ëllëg. Hmm. en cas mel ni bu la dalee boobu léegi boo gisee bougé wu na nag def ay porte plainte. en cas yoon tamit topp liggéeyam yàlla baax na.